waaw déglul de li ca bureau ba laay nettali nii mbind bi mi ngi fii ma denc yàlla bind ma bindal la loo mësul dégg daan ni mag ña fa desoon yéen mën ngeen wàcc ci suuf ndax léegi dafa mel ni leen mbir mi dootul seeni mbir sama mbira nee na ne tubaab bi moo ni mag ni mag ña fa newoon jénni leen déedéet Serigne Touba moo leen libéré ña desoon kan fóori yeeg ñoon ñoon ñoon ñoon sëñ Tuubaa moo la yéen léegi mën ngeen wàcc ndax dafa mel ne mbir mi dootu seeni mbir sama mbira sëñ Tuubaa nasaraan bi yëg ci kaw indil ko koy lii la fa bind lii may wax la fa bind dafa ni cas xalima gi dem bind teg delluwaat ginnaaw ñoom ña ña ngay déewante naan il a peur mi ngi fii ma yor il a moom ragal na daal fekk بابا booba sunu borom lay waxal ni ko de dama bëgg balaa muy bind nga dindi soxor ak kiñaan sama xol bi ba set mu defal nan la wa kun nasiri anisi xiina ma dafanu jismi fasirtu waxidan sama yallaahu yàlla ni ko doy na mu ni ko déedéet sama xel laa bëgg nga def ko mu sut xelum koo mës a bind falaa tekki ila nafsi fa ahlika kun keroog bi mu ne kun sëñ Tuubaa kun gi tax falaa takki nii ilaa nafsi fa ahlika kun mu ciiba nii haysuma at uka waxul Muhammad de yàllaahu la wax rasulilaay ni ko tey lislaam am na ndam dala doon natt rasulilaay dafa di Ahmadu yàlla dala doon natt di xool ndegam mën nga cay teg yaa xereñ tey lislaam am na ndam mu ni ko yàllaahu yàlla ni ko doy ne mu ni ko yow yaay borom kun fayakun yàlla ni ko waaw déglul de li ca bureau ba laay nettali nii mbind bi mi ngi fii ma denc yàlla ni ko doy na mu ni ko déedee benn laa bu bu ñetteel bi laa lay laajte mooy maanaam kun fa yakun bi nga xam ni yaay borom nga tuxal ko ci sama xalima yàlla ne ko defal nan la ko mu ni isa katabtu tas harsul baaqi wa sabaxat malaayiku tibaaq Sëriñ Tuubaa ni nekkati su ma jëlee sama xalima di tagg rasulilaay ara sa kursi yi dañuy yëngatu di jaayu malaaka yi di jaayu uurul ay ni ci boppam ñun ñii bu ñu jàngul xasidi sëñ Tuubaa du sax sëriñ xam nga lu tax haraba min kitaabati mat xuuru wa bi xuuru fi tata an naa xuuru uurul ay ni bés bu nee dañuy jàng foofu xasida sëñ Tuubaa yi àjjana yi juróom-ñett la juróom-ñetti àjjana yëpp min dub sëriñ Tuubaa la ñuy bëggee yow ma léegi man mën a xam sëriñ yi rek seen mën a bëggee de yi rek